asalaamaaleykum mbokk yi tey la altine ñaar fukki fan ñaar ci muharram muy weeru tamxarit di weeru njëkk ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan juróom-ñeent ci weeru juillet ci atum ñaari junni ñaar fukki fan ñaar bokkul ci limuy fàtti lim bu rafet la kon tey ci altine ji rafet na lii ci gën a taamu mooy ku watu wala ku daloo altine ju nekk sunna la ci ku ko man ko. ñaanu bis bi yow sunu borom yàlla na nga ma jéggal yàlla na nga jéggal samay wayjur yàlla na nga jéggal way gëm ñi bis bi ngay taxawal ak réglé rabbana xfir lii wa li walidayya wa lil muminina yowma li walidayya wa lil muminina yowma yaqumu alxisaab xadiisu na ci abi hurayra mu ne yonente bi salallahu alayhi wa lu dul way bëggale laaj ko ne la lan mooy way bëggale mu ne mooy gént gu baax xaddis bi buxaari nettali na ko an abi hurayra an annabia salallahu alayhi wa sallam qaal lam yabqa min annubuwati illa almubashirat qaalu wa ma almubashirat qaal arruya alsaliha rawahu buxaari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 soo ko fiitee gànnaar wala Saalum téeméeri kilomètre la yokkal benn simili jant bi dana fenk 6 heures 52 juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak ñaar desoo 19 heures 34 juróom ñaari waxtu yu tegal fanweeri simili ak ñeent yàlla na yàlla nangul te nangul leen amin